asalaamaaleykum warahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem ngi toog Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen bonne fête fête de indépendance waaw fête bi nag yaakaar naa ne lépp fa difile waaye nag euh, suñu BRT bi difile na suñu BRT bi difile na BRT bi nga xam ne ni dañ ko war a inauguré bu yàggul incha allah rabbi euh, difile na loolu nag sénégalais ci gagné lii nag euh, moom nekk nu lu am solo li tax ma wax loolu moo di 4 euh, april foofu lay commencé am na ñu fi nekkoon doon ko def ak defandoog ñun tey ñooñu ànd ñu dem nañ teewul 4 avril mi ngi am ba léegi ku mel ne Senghor ku mel ne Abdou juuf ku mel ne Abdoulaye wadd ñoom ñëpp def nañ fi euh, fête de l'indépendance ànd ñu tey nekkutuñ fi kan mbir mi continué la. Macky Sall tamit mi ngi noonu tey bis bu fi jegee tamit après 4 euh, avril day continuer moo tax may wax ne chaque jour ñun ñëpp 4 avril sunu 4 avril la voilà bu ñëwee ñun ñëpp dañ ko waree a bégee macha allah tey na gis nañ ay défilé yu am solo yu am solo sax ci lii nga xam ne moo di 4 avril bi gis nañ tamit sunu BRT bi mooy bis bu rafet bi ngeen gis bu yànj bi nga xam ne sénégalais yee ko moom man nag li ma ci gën a marqué moo di couleur bi couleur réew mi la nga xam ne nekk nekkul couleur parti nga ciy sentir wala moom nga ciy gis couleur réew mi ngay gis ci BRT bi te loolu am solo la lii day wane ni kan réew mi saf na ci sàpp kan lii day wane nii réew mi kan ñoo moom lii nga xam ni mooy seen BRT wax dëgg yàlla ndax boo xoolee oto bi ak couleur bee yëpp wax di yàlla da nga ko ci sentir kon réew mi wax dëgg yàlla suñu réew la nag kenn ku nekk jàpp kenn ku nekk di defar kenn ku nekk di def fa ca la nga man sa kéemtalaay kàttan eh, ci defar ci xam nga voilà parce que defar nag côté yëpp la ñii ngi defar ci làmmiñ ci wax ñii ngi defar ci jëf ñii ngi defar ci dem leen tekk di ñii ngi def maanaam côté bu nekk rek kenn ku nekk na nga defar ndax réew mi sunu réew la voilà eh, saaru oto BRT yi nag wax dëgg boo demee ci réew yu mag yi développé da ko fay fekk fu ci mel ni Maroc boo fa demee da ko fay gis wax dëgg yàlla te vraiment dañ koo fonk te boo demee foofu noonu comme seen couleur yi réew lañ ciy def macha allah kon nag yaakaar naa ni lii nekk noonu am solo voilà kon daal euh, di euh, ci beneen bi ci des tamit li nga xam moom lañ ñu jox ci ay information mooy euh, doomu réew mi gàññe na ci ndax boo gisee couleur oto beeg yëpp li ci nekk doomu réew mi moo gàñe marché bi mooy Badiane dëkk Mbacke Bawal ci li ñu wax ci li nga xam ne loolu la ñu wax voilà mooy kan yaakaar naa ni doomu réew mi gàññe na ci waaw te loolu lu am solo la voilà léegi lu ñuy gën a dem nag euh, doomi réew mi di gën a gañe ci euh, marché yi nga xam ne dafay am ci réew mi waa BRT bi nag wax dëgg yàlla am na solo ndax couleur beeg ya ci ajoog yooyu yëpp gis nañ ko wax dëgg yàlla Sénégal gis na ci boppam doomi réew yi tamit yaakaar naa ni kenn du werante ni gis ngeen ci couleur réew mi kan nekkut loo xam ne ni ay par parlo wala parteeg yooyu noonu couleur parteeg yooyu ma ngi ci non non no non couleur réew mi la ko am seetlu rek xool euh, BRT bi da xam ni couleur réew mi drapeau Sénégal bi moom nga ciy gis te lool lu am solo la kan daal nañ gën a bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo ñu tàppee xol yi te xam ne Sénégal ñoo ko bokk liggéey rek jëm ca kanam voilà ndax àdduna bi dafa toll foo xam ne léegi liggéey bi ci xam-xam la nekk ci sa bopp la nekk ci sa xel mu rafet ci sa xel mu sell ci communication bu rafet ci booloo ci bokk ndey ci bokk baay loolu mooy avancer réew mi waaye du xët-xët di xiroo du ŋaayoo wala kan nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax voilà bu ko defee nag 2024 euh, mu ngi ñëw ñu organiser nag ay élection yoo xam ne wax dëgg yàlla élection yi daal lay doon euh, ki le maire gañ wax dëgg yàlla Ousmane Sonko nag wax dëgg yàlla euh, moom nekk ne ki nga xam ne ni ndaw ñi am nañ ci moom yaakaar voilà ëllëg ndax nekk ne koo xam ne wax dëgg yàlla Euh, ku mat a bàyyi xel euh, ndaw la te euh, Sénégal fi na soxla na ndaw ñi pour ñu liggéey ndaw ji tamit réew mi soxla na leen voilà kon nag yaakaar naa ne lii yëpp rek c'est parce que lan moo ko waral fête fête de indépendance bi ndax ci ngay mën a gise lépp ci la lépp di xewee voilà kan BRT bi yaakaar naa ne booba jiw moo nekk nii ñi ko doon laaj xamuñu ko woon gisuñu ko woon moo nekk nii couleur bi ngeen ciy gis nag ak yi ci des ak peinture yeeg doomu réew mi moo ko gañe ndax ku ñuy wax Badiane dëkk Mbacke ci nit ñu ko waxee moo gañe marché bi FAL 94 Walf Sénégal lii la leen indil.